Cécile Ndiaye madame Fall man lañu dénk agence poste finance bu Pikine Jàmminaar bi nekk ci koñu tàkk gi dañu seetlu ni fii ci Ndar particulièrement pikin fi suñu clients yi yëpp ëppee cancer bi mi ngi leen di bëgg rey poste finance c'est pas pour rien que mu lool du dara moo tax mu choisir Ndar ils sont venus au bon moment dañu ñëw ci heure bu baax bi heure bu baax bi mooy heure octobre ñu ne tey la 31 ñun ñooy clôturer ñun ñooy tëj saison octobre bi te octobre ku ko wax dangay ngay wax cancer cancer ban bi sonal jigéen ñi mooy ban butitu njurukaay ak bu ween sonal na jigéen ñi trop poste finance tey jii suñu directeur ñu ngi koy nuyu Amadou Julle Ba ñu ngi koy nuyu di nuyu di nuyu sunu ay directeur directeur d'exploitation la directrice commerciale ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu le DER le, le, le directeur régional et le chef d'agence régionale Baye Ousmane Gueye qui devait être là bi nga xam ne waroon na teew ñoom ñëpp poste finance tey Pikine Diamina da leen di gërëm ndax ñoom ñëpp accompagné nañu ci bis bii nga xam ni directeur général dan ni octobre rose bi mammographie bi c'est gratuit mais dafa am ñu leen di accompagner te tey jii kontaan nañu ba nga xam ne directeur général poste finance dugal na ci loxoom jël 20 femme ñu may leen bon pour tey jii kuñ fi détecté gis ci benn anomalie dañ lay jox bon nga dem district ba te doo fay ñaar dërëm te tey jii buñ ko doon fay dana cher